أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين بوكي جوزي بوكي طالبي يونتي صلى الله عليه وآله وسلم باوخني الدين النصيحة maanaam diine mooy laabire ba jullit bi lu mu xam ci luy defar mu wax ko mbokk jullit yi ñu defaru ca lu xam ci luy yàq mu yee ci ay mbokk jullitam ndax ñu mën koo moytu daa am loo xam ne nag day xew ci jamono te yàgg na ci xew waaye léegi lu ëpp loolu mooy li xew ci jamono góor ak jigéen jote ci sawukaay te waruñu woon a jote mën naa am góor gi daa jaawale jigéen ba joteeg moom defe woon ne soxnaam la nekke du soxnaam loolu nag bariwut am waaye xëy na mu am li gën a bari daal mooy jote jote njaaloo mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo juboo ci jote ga te jote ga sën ñu ko woon loolu njaaloo lay tudd ba tey nag mën naa am góor gi ëpp doole jigéen ja forcé ko ba joteeg moom kon loola njaaloo la ca góor ga waaye jigéen ji moom gis ko tudd ak njaaloo ca moom saa yoo xam ne góor jote na ak jigéen te waruñu woon a jote ci yoon nañ xam atte ba atte ba mooy jigéen joojee dañ koo war a laablu nga xam ne bu fekkee amoon na jëkkër bu jëkkëram joteeg moom dara ba kere muy laablu ba noppi bu fekkee amutoon jëkkër bu ko kenn takk ba kere laablu ngay mat laablu gi mooy dañu wóorlu ba xam jote gu ay gee ëmb na ca dara wala ëmbiwu ca dara am déet laablu googu nag ni it day toll rek day toll bu dee koo xam ne dafa ndawee ba du gis deret mbaa bu magee ba du ko gisati kon laablu ba yetti weer lay doon bu fekkee nag dara gis deret waaye yooyu jamono jote ba ëmb ca kon dañ koy bàyyi ba mu gis deret yetti yoon gis deret laab muy benn gisaa deret laab muy ñaar gisaa deret laab muy ñett ba laabuk ñetteel googee jeex ba deret topp ca ndegam moom kuy gis deret la te ëmbut ca jote ga kon loolu mooy ak laab loom su fekkee ëmb na ca jote ga nag gannaaw bu amul a juddoo day toogaat ba gis deret yetti yoon te seetlu nga ne li ci ëpp jigéen bu dee nàmpal gis deret muy régal da koy jafe waaye du tee moom faaw dina xaar lu mu yàgg-yàgg bala ko kenn mën a takk mbaa balaa jëkkëram mën a ñëwaat ci moom faaw ñu bàyyi ba gannaaw bu mu amee doom mu gis deret régal jooju yetti yoon ba laab ca deret ñetteel ja ba deret ñeenteel ja feeñaat su boobaa dañ koy door a mën a maye jamonoy jigéen ci tolloo ci laab lu googu ma wax nag ci waxoon ne bu kenn ñëw di ko takk su kenn ñëwee takk ko ci yooyu jamono bu fekkee takk ga wéesuwu ko kon moom lu yàgg-yàgg bu laab lu ga jeexee rek ak ku mën doon moo xam ka mayoon na moom yàlla la ba mu ëmb moo xam keneen la moom bu laablu nga jeexee rek jëmmi fas ga sa amoon maanaam jëmmi may ga amoon rek du yàq dara waaye nag bu fekkee muy ca may ga moom mi ngi ko may ci biir laablu gi far na joteeg moom ci fekk jigéen ji muy laablu mu takk ko joteeg moom xëy na mën naa doon ka nga xam ne moo defa nag moom mooy yàlla ga mën naa am itam muy keneen di ab jaambur moom xamu ci woon dara sax léegi nag bu dee jaambur ba nga xam ne fekk na jigéen ji mooy yàlla ba waral na laablu ñu may ko ko nag moom yëngu ca may ga xanaa joteeg moom xanaa bu mu xasee joteeg moom moom moo xam tey la moo xam teyut la suñ koy wax ne ko araam na la faw faw faw ba addunay tukki bu doon nag ka def ak moom mooy yàlla ga moo ñëw takk ko ci waxtu woowee muy laablu te waru ko woon a takk mu takk ko daal joteeg moom itam ndega moom la ci nekkoon ci lu aay bu wax ci defoon dañ koy wax ne ko yow daal du la araam araamu faaw faaw déedéet day tàmbaliwaat laablu laablu gu yees rek ndax jote bi nga jote waat ak moom ci takk gi waaye bu laablu gi jeexee rek ba tey boo bëggee ñu mën la ko may xam ne ko ba tey itam jigéen bu dee iddawu iddawuy faatu wala iddawuy fase idda mooy daal jëkkëram faatu mu war a toog ab diir bañ laablu ba xam ëmb na ci wala ëmb ca wala jëkkëram fase ko ñu war a seet ba xam ëmb na ci wala ëmb ca loolu moo tudd idda ba tey loolee bu ab jaambur dikkee bu mu nekk jaambur mooy ku bokk teg ka waral idda ja bu dikkee takk ko joteeg moom ca takk ga jeex na da koy alaam faw faw faw ci des ci àdduna waaye ñu bañ a fàtte ne takku kese maanaam may kese kese kese nga xam ne jote ga amu ca moom du araamal bu dee mayu kese moom du tee bu jigéen jee weesoo laablu ga mbaa idda ja rek kookee ñu ko mayan mën nañ ko ko mayaat kon nag ñu seetlu bu baax ne bu fekkoon ne góor ak jigéen dañoo gis ñuy ànd ànd boo xam ne wërta am bañ demee nag ba seeni mbokk juboo ci may jigéen di góor ga dañuy seet bu leen wóoree ne ñoom ñi kat àndoon nañ ànd boo xam ne aay na doon ci jigéen ci ëmbut it naa buñ jekki-jekki fas ak seen seen diggante nañu bàyyi ba jaarale fi laaj yu yi nga xam ne moom laa wax léegi ndax ndegam xam nañ ne ak mooy yàlla doxal na seen diggante ñàkk nga ëmb te dañu war faa doxale li ma wax léegi ci xeetu laablu mënu caa ñàkk na kilifa ga teylu loolu bu mu jekki-jekki may jigéen ji góor googee ku dégg waxtaan yi nag sa seetlu ci sa bopp ne mas ngaa takk jigéen joo xam ne ba nga koy takk fekk na mu war a laablu te laajlu ba amu ca woon da nga seet ne la ko waran taxal laajlu ci yow la bàyyi ko woon nu wax ne kon tax da nga ko takk joteeg moom bu araamal araamuk faaw bu fekkee yaa ngi yore kooka ba léegi da nga koy beru maanaam bañ joteeg moom dara ba doxale seen diggante laablu ji nga xam ne moom nga dégg ñu wax ko su laablu ba matee nag ñu door la koo may nga joxewaat can gu yees ba tey bu fekkee am na koo xam ne yaa ko yilif muy jigéen te mas nga koo mayee te bu demee nii na nga leeral kan ko may ne ko ah bañ la koy may kat booba laablu ga ca waroon a am da ca amutoon kon da nga koy beru bañ a joteeg moom dara bañ doxale fi laablu gu mel ni ji ñu wax yow bëti ko nag léegi may la ko bu ko wóoree ni sax moom góor gi mën naa bàyyi jotee jigéen ja dara dara ci diir boobu kon mën nañu rafetal bàyyi sa soxna sama toog ñu xam leen xam rek noonu bàyyi ba laablu bi jeex mu daal di joxewaat can nag ñu may ko ko may gu yees kon nag mu takk foofu bu baax a baax ne boo amee ko yilif ku jigéen ak ndogal dal ko bu ëmb ëmb gi sax du ci am sart waaye bu ëmbee lay gën a yomb a xam su boobaa su ko ëmbal bu nangoo jigéen di nangu itam du tax nga ne ko ngénteel ma may la ko déedéet dañuy bàyyi ba ëmb ba jeex bu ëmb ba jeexee itam kat lay door a tàmbali laablu gi ma waxoon mooy day toog ba gis deret ci reegal ñu wax mbërëg mbaa baax yetti yoon ba yoon ñetteel wala laab na ca ba gis deret ci ñeenteel su boobaa nga ko koy door a mën a may wala boog ci nga koy door a mën a may keneen ku bokk teg te defa nag moom mooy yàlla def li feeg laab boobu jeexul rek kenn du ko mën a maye te waxoon naa léegi ne laab lu googu mën naa yàgg ndax bu fekkee am na doom te doom ja nekk fa tam di ko nàmpal li ci ëpp kuy nàmpal du gis baax muy deret jooju la muy mërëk kon dañuy bàyyi ba mu nàmpal ba gis yëpp deret yooyu mbaa boog yàlla dogalee doom ja génn àdduna wala ñu def yeneen pexe di ko nàmpale leneen loolu lépp daal baax na waaye bala ñoo mën a maye jigéen ji daal moom day gis deretu reegal jooju yetti yoon ba laab ca dereti ñetteel ja ba gis dereti ñeenteel ja ba tey itam ñu seetlu ne bu ñu mayee nit soxna soxna si àndaale fa ak ëmb te moom juru ko moom miñ ko may bu fekkee jotewut ak moom dara dara moom bu laabloo ni mu waxee woon léegi daañu ko ko mën a may waaye bu fekkee xas na jotee moom door a xam ne ëmb na lu yàgg yàgg da koy araam faw faw faw nga xam des ku mën a wax ne ko su ëmb bi jeexee te nga bëgg ñu may la ko mbaa nangam ak nangam déedéet ndegam moom lu araam loolee ca nekk moom defu ko ca woon ab jaambur rek la ca te xas na jotee moom ci kaw may ji ko ko may muy soxnaam léegi jeex na da koy araam faw faw faw bu fekkoon ne nag moo def ak moom lu araam loolee nag kon moom biñ ko takkee jotee moom itam du tax mu araam ko faw faw dañ koy wax ne ko rek laablu gi moom mënu cee ñàkk ngay bàyyi ba mu am doom ba gis yetti deret ya ma waxoon na ma ko leerale woon ñu door la ko may ba tey it ñu seetlu ne ñuy wax doomi jiit li mooy nga takk soxna fekk mu yoran doom léeg-léeg mu ñëw kenn ci sa njaboot bëgg a séyeg moom lay tax nag kenn ci sa njaboot mën a séyeg sa doomi jiit li joojee mooy sa doomi jiit li ji ba muy ñëw fekk mu feex fekkutoon muy nàmp waaye bu fekkee ba ngay takk yaayam daa fekk muy nàmp dañuy jàpp ne kon boo xasee joteeg yaayam am soow day amee ca jote ga nga joteeg yaayam bu ko defee kookee nga xam ne juróo ko woon dëgg-dëgg day nàmp soow mooma te bu nàmpee soow mooma dañuy jàpp ne ci dëgg-dëgg bàyyam nga ni ki bàyyam ba ko jur dëgg-dëgg su boobaa nag kon kenn ci sa njaboot du mën a séeg moom waaye bu fekkee nag ba ngay takk jigéen ji fekkoon na doom ja nga ko fekkeel fer nampaatul benn yoon ci bi nga takkee yaayam kon kenn sa njaboot mën naa seet kookee ba tey nag ñu jàppaale foofu ne su fekkee da ngaa yoroon jigéen ba ngeen tàggoo te ba ngeen di tàggoo fekk muy nàmpal mel ne kon jëlee na ci am soow su demee ba amaat beneen jëkkër wala ay jëkkër jëkkër sax li fekk soow mi nga xam ne moom la jëlee woon ceew di jeex dañuy jàpp ne bu amaatee jeneen doom it dana ko nàmpal soow mooma te doom joojee mu amaat bàyyi nga ca moom kon nag nañ moytu kenn ci sa njaboot gi nga xam ne kookee nga tàggoo juru ko bëgg a dem nag takki ka soxna sa amaat foofee mbaa kenn ci ka soxna sa am foofee bëgg a ñëwaat takk ci say doom ku bokkut ak ñamu jur loolu nañ ko moytu bu baax a baax ba tey nag nanu xam ne jigéen bu ko ndogal dalee maanaam mooy yàlla ba ëmb du sañ a jekki-jekki wax ne diw mooma ëmbal lu may nga xam ne kooka da koo nangu gantuwu ko mbaa boog fekk kookee ñu xam ko ci def lu mel noona ba mu siiwee ko waaye jekki-jekki rek ëmb daal di ne diw ma ëmbal loolu kenn sañu ko bu fekkoon ne yoon a ngi dox ku ko def ñu daal lay bëgg a caw juróom-ñett fukki yar ndax bañ ku jekki-jekki wax lu mel noonu kenn te fekk na dara amu ca waaye moom jigéen ji bu waxtaanee ka mu jàpp ni moo ko ëmbal ba kooku nangu ne maa ko def mbaa fekk na kooku ñu xam ko ci lu mel noonu ba mu siiw ca kon loolu jigéen ji mën na koo wax waaye it nañu moytu doom ji mel noonu ñu koy tuddee baayu ka def mooy yàlla ga mbaa yaayi ka def mooy yàlla ga ndax dañuy faral di gis bu jigéen ne diw moomu ëmbal te koo koy gàntu ñu daal di gaaw rek jël doom ja tudde ko bàyyi kooke ñu ko jiñ te muy gàntu mbaa yaayi kooke lu mel noonu kenn sañu ko ndax moom mi def mooy yàlla gi moo ko def waaye waaye ndey mag bàyyi moom ku leen ci taxal rek tooñ leen ndax ñoom defuñ ci dara te boo demee naqar na leen lool ndax ab ab jullit moom ak mooy yàlla bu demee nii du ko bëgg mukk ak wala ba tey ñu jàpp ne ku yoroon lu ëpp ñeenti soxna gannaaw ba nag mu bëgg a dellu ci yore ñeent rek ñeent yu njëkk yi rek moom la ñuy jàpp ne ay soxna lañu la toppoon ci ñeent ne yoon day jàpp ne fasuwutoon sax moom la ñu fasutoon ñooy am kon nag su wàññee ba àggal su bëggee yor ci ñooñee nga xam ne ñoo tegoon ci ñeent ña dañuy seet ba xam ndax jote woon naa ñoom dara am déet bu fekkee jote woon naa ñoom dara da leen di bàyyi ñu laablu laablu gu mel ne nee nu ko waxe woon ca gannaaw bu laablu ko jeexee nag mu door a joxe can ñu door koo may ndax la jiitu woon yoon du ko jàppee ak may bu fekkee ne soxna ya mu takkaatoon ci gannaaw ñeent ña may kese rek moo fa jaaroon waaye jotewut ak ñoom dara kon gannaaw bu wàññee ba noppee dal lay mën a takkaat ca ñooña fa saasa te itam mu seetlu ne fu mu fu waxe ne ak laablu war na mbaa idda war na rek xamal ne doonte kooka daa magee ba nga xam ne moom xam ne ni ëmbut day duy sati ëpp ëmb it te te rek dañu ko digal war naa def laablu googa bu dee laablu war naa def idda ja bu dee idda bokk na ci yi nga xam ne itam mat naa wax fii ndax day lu yàgg lool lool ci réew mi te mata moyu mooy di dénkaane ak jur wala lu mel ne ganaar ngeen juboo ci bu juree moom mu ko yore am ca nangam mbaa bu juree mu fab bu juraatee kee fab lu mel noonu bokk na ci xeeti ijaara yi nga xam ne yu mata mata moytu la te kat dafa yàgg lool lool ci réew mi lu mel ne yoral ma ganaar bu amee ci lu seddoo lu ci ca toll rek wala yoral moom xar wala bëy bu juree keefab bu juree keefab wala bu juree ñaar ba ko ñetteel keefab yu mel noonu yépp dañu koy aaye bu wër a wër ndax defal ma ma fay la dañ koy sart sart yi ñuy sart ci jaay nga xam ne dañoo war a xam la muy deflu fu muy tàmbali ak fu muy yem lañ koy fay itam ñu xam ko xam fa muy tàmbalee xam fa muy yem biir ak biti te xam nga ne lam koy yorloo muy ganaar muy leneen bis mu ko joxee rek mën naa daal di dee ba tey mën na koo yoro yoro juróomi at ba jur bu yàgg yàgg te du jur dara dara yu bari daal da cee nekk ci xeeti wóoradi yoo xam ne nañu koy bañ ci jaay noonu lañ koy bañ itam ci lu mel nii ba tey bokk na ci xeeti njuumte yi bu ñu dee fab surga ci nawet jubóog moom ci jox ko aw jiw ndax te it faaw dañuy faat ne da koy bay ndax bu fekkee bayu ko jaay ko mbaa yu demee noonu kon mën naa mu daw bu liggéeyal njaatige la lam ko war a liggéeyal te it ndegam mu ak payam la moom bu dee ci yoon moo ko moom rek lu ko neex la ko war a def daañ ci boole sax ne faw ngooñ mi njaatige li moo koy jël waaye moom surga bi bu ko jël loolu lépp njuumte la kon nag yoon wa nga xam ne moo gën a wér mooy boo bëggee jël surga nga waxtaan ak moom ba juboo ci ne ko boo ma liggéeyalee ba nawet bi jeex ba liggéey bi àgg ci waxtu sàngam saa ko bëggee nangam maa la ko war loolu bu dee xaalis baax na bu dee wurus baax na bu dee dugub mbaa leneen ni ki gerte mbaa leneen ba tey baax na loolu mooy li wér bokk na ci xeeti riba yi nga xam ne warees na ko moytu bu baax a baax mooy dem ci kenn mu lebal la ab xaalis buñ ci tegee def sàngam boo ñëwee delloo ko ko tegal ko ca nangam ni ki xeeti projet yi nga xam ne noonu la ñu demee loolu moom banque yi ñooyam rek bu ñu nangu benn yoon daal lépp le wurus mbaa xaalis te ñu war la caa tegal nangam ci wurus mbaa xaalis loolu ribaaju réy réy la du ñu nangu sax nga fekk ku mel ne kuy jaay ku jënd ak yu demee noonu nga dénk ko xaalis ngeen juboo ci su ngeen àggee ci def sàngam lañ ko dénkoon mu tegal la ca nàngam ni ki moom day commerce nangu na nga dénk ko lu mel ni million bu ñu àggee def sàngam nangu laa jox million bu tegal ñeent fukki junni ba nàngam loolu ba tey lépp le xaalis rekk la ngeen juboo ci mu tegal la ci xaalis lépp riba la suñu bëggee daal na nga xam ne moom la projet yi di leble wala banque yi aw yoon dañuy juboo ci ki ñu lebal ñu lebal ko loo xam ne du wurus du xaalis marchandise lay doon ak xeeti njaay yooyu bu ko defee ne ñoom mën nañoo juboo ci njëg dañ ko ko bëgg a jaayee moom nag mu dem jaayi lu topp ca njëgg rek muy bénéfice moom moo ko moom fekk itam nag ñu leeral waxtu wa nga xam ne ca la war a fay si jaay nañ ko dugoo nañ ci njëg njëggoogee rek ñu leen ameel ñu ca topp bénéfice ma moom moo ko moom bu perte it moom moo perte rek waaye ñoom seen yoon nekku ca ba tey bu fekkee ne banque bi wala projet bi bu leblee xaalis wala wurus kenn du ko fayee wurus mbaa xaalis leneen lañ koy fayee lu bokkut ak loola daal nekku ca ni ki ñu juboo baykat bi jox ko wurus mbaa xaalis buñ àggee ci daf sàngam bu andil leen nangam ci gerte mbaa nangam ci dugub mbaa nangam ci mboq mbaa nangam ci wëtteen loola dara nekku ca loolu ñu wooyee assalam ci fiq maanaam kii joxe njëg jubóog kam defe ne mën naa am loola ci waxtu sàng mu andi ko loola loolu itam moom dara nekku ci ba tey yoon nangu na nga fekk koo doy loo ci mën a liggéeyam nga jox ko capital waaye kat capital bu faaw day nekk wurus mbaa xaalis waaye du doon leneen mu liggéey ca ngeen juboo ci mu am nangam ci bénéfice ba lam cay am mën naa bari mën naa néew ci bénéfice ba li ngeen ci juboo rek baax na buñ ci àggee nag da nga xam ne perte na itam yow mi nga xam ne yaa moomoon capital bi yaay ñàkk lam perte waaye doo ko wax ne ko lim perte dama koy fay loolu yoon nangu na ko moo tudd al xiraab li ñuy bañ tey mooy nga jox ko lu bokk tëg wurus ak xaalis muy capital mel ne nga réglé ko bitig bi rek noonu ne ko bitig bi seet nañ ko nangam moo ci nekk ci marchandise ay ca tàmbali jaay ñu jàpp ne li ñu réglé marchandise bi mooy capital bi buñ ca àggee nag ba seet li ca topp rek nga am ca nangam ca bénéfice ba ma am ca nangam loolu dañ koy aaye nee nañu sax bu fekkoon ne xeetu wurus mbaa xeetu xaalis amut nga xam ne marchandise kese kese kese moo amit du tax ñu mën ca loola ndax nee nañu xiraab moomu lu wóora dee wóora di ne waaye nag yoon def na ci jàppandal bu ci yoon defee jàppandal nag suñ ko tënkoon rek wala ñu koy tënk ba tey kenn du ko yeew yi di ko yaatal daa mel na nag boo demee fële ca yaamu sukkoroog fu demee noonu ca Côte d'Ivoire ba ci fii ci réew mi sax bari na fi jëflante yu mel noonu nga xam ne ñu jox kooku rek marchandise ma ca prix bu jaayukaay ba fekk rek lee nañ ko nàngam loola it lañ jàpp capital ba bu ñu àggee ci rek la it loolu la ñuy génn jàpp ne mooy capital ba la ca topp la ñuy defante nañu waxante woon lool nag lu ñu aaye aaye la lool lool ba tey ab jullit bu bëggee sàmm lislaamam bu sell day jëflanteeg banque yi lislaam yi te bañ a jëflanteeg banque yi riba yi banque lislaam yi nag léegi dañoo tasaaroo lool béréb yu bari am nañu fa te bu ko see am ci béréb yow mi dib jullit doo sañ a jëflanteeg beneen banque bu bokkut ak moom ba ci dénkaani sax bu fekkee ne fa nga nekk am na banque islamique doo mën a dénkaani ci yeneen banque ci des bu fekkee da ngaa loru ci mën laa ñàkk dénkaane ca banque yooyu nga xam ne duñu banque lislaam nag ba am lu ñu ca tegal ndax la nga fa dénkaane loolee ñu la ca tegal doo ko fa bàyyi te it doo ko sañ a jëfandikoo da nga koy def ci mbootaay yi nga xam ne dañuy defal yàlla moo xam dañuy féete wàllu paj mbaa dañuy dimbale ñu néew doole mbaa dañuy dimbale ñuy jàng ka jàngale xeeti mbootaay yooyu nga xam ne way defal yàlla rek lañu te ngay joxe loola ba tey àttak foroot mat naa xàmmee su fekkee kilifa ya dañuy àtte àttey lislaam nga xam ne ñu mànd lañu ñu seet ba xam ne masandi sàngam andi ko ci béréb bii lor la bañ aaye ku ko andi kon benn julit du sañu xëtt ndigal la dem di andi loolee ñu aaye su fekkee nag kilifay julit yi dañu noonu amut am mbokkum julit mu dem seet lu baax te yomb mu jënd ko andi di ko jaayaat mbokk julitam lu yomb ñu nangu ko ne foroot la ña ko nangu muy autorité yi buñ koy jaayaat yow mi sàmm seen julit na nga moytoo dem di ko jënd ngir moom ko man nga koo jënd nag ngir delloo ko boroom ci njëggam ku jënde woon mbaa ci yombal waaye bu ko jënd mukk ngir rek am na bénéfice naa ko jënd jariñoo jot na loo tudd daal ay mbiri mbiri fi yoo xam ne nii boo ko dee seet ab julit war na koo xàmmee te di ko moytu bu baax a baax def na yeneen sox yu bare bari waaye nag loolu la jot gi maye tey li ñu wax yëpp nag ñu ngi ko sukkandikoo ci yoonu al imaamu Malik ni Sëriñ Tuubaa dénk mboolem taalibe yi ñu jàpp ci te bañ ko weesu jëm feneen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين لموي مجموعة بلا خمنة شيخ عبد الأحد يالنا قيالة دولي ngërëm ak leer moo ko doon boole da ci doon boole yenn dénkaan yi nga xam ne suñ tuubaa daana ko dénkaane ak yenn tont yam daan tont ne ko daa laaj ak tomb yam daan tomb suuf moom nag dañ koo dajalee nañ ko jote rek waaye jéemuñu koo toftale na mu toftaloo dañ doon def rek luñ am rek bind ba mu daje nii mu daal di koy bindulu moollu ko foofee ci daaray kaamil nag la jëmmi téere bi di am waaye mel ne ba léegi tàmbalee gu ñu koo jaay ak jënd boo xoolee ci kaw fegg wi dañ caa bind haadihi majmuhatun tashtamilu ala baadi ajibatin li cheikhin xadim kaana lahu bi karamihi albaaqi alqadim wa cheyin min isharatihi wa baadi wasayaahu li baadi muridihi wudihat huna xawfa aldayaahi laa xalaa nafaq bal kayfa ittafaq ولا على الاستيفاء لكن على حسب الوجدان والإلفاء بإذن من الخليفة الشيخ عبد الأحد البكي dañ ca teg nag ne képp koo xam ne mbiri sëriñ bi yitteel na la na nga góorgóorlu ba am ko ak noo ko mën di amee moom nag téere la boo xam ne ni mu amee njariñ yéemu na lool lool ndax ndax dàggantiku kaay la boo xam ne taalibe bu ne mën na ci sukkandikoo ci digganteem ak sëriñ bi nga xam ne bu fekkee gis soon sëriñ bi itam bu ko dee déglu di ko jëfe kem kàttanam day mel ne rek mu ngi toogoon firoon sëriñ bi sëriñ bi di ko digal muy topp mu mel ne rek kenn la ci ñaraa toog ak moom kon nag taalibe bu ne na fexe ba am ko te di ko déglu bu baax a baax di ko jëriñoo bu baax a baax te di ko jot li ñu nga xam ne yaakaar na ne yittewoo nañu ko bala noo tàmbali nu leeral ne kat am na ci ay baat yoo xam ne suñ bee ko waxee noona ñu binde ko noona waaye am na ci yoo xam ne dañ koo soppi arab waaye sëñ bi ba mu koy wax ay wolof la ko waxoon am mbokki taalibe nag yu ko fekke woon baa ñu déggee ko ci ko wóor a wóor wëlbati ko nag soppi ko arab nga xam ne kon jëmmi téere bi lépp lépp arab la waaye nag lenn li waxi sëriñ bi ci arab lenn li ay waxam la woon ci wolof am ko ko wëlbati nag def ko arab li nga xam ne sax sëñ bi ci boppam arabalu ko amaana nga àgg ca foo xam ne maxnaama dana desee leer ci yow bu baax a baax dana di gis sax ci loolu nga xam ne sëñ bi arabalu ko nun pour fa àggee ba di ko jàng dunu jàng na nga xam ne moom lu ñu binde foofa loolu nag nga seetluwaale ko ci bismillah kon nag noo ngi tàmbali أعوذ أنا مسلم بالله في الله من الشيطان في شيطان الرجيم كدكم جم ومن سوء النفس أكتي بنق بطن ومن إضلال الهوى أكتي رير بانيخ ومن إغواء الشيطان أكتي دولوك شيطانه ومن غرور الدنيا اكتور ادنا
sëriñ bi daa tàmbalee ci muslu ñeent noon yi nga xam ne mooy nooni nit muy seytaane ak bakkanub nit ki ci boppam ak bànneex ak adduna mooy suñu boroom yàlla na ma musul ci dewloog seytaane musul ma ci banuk bakkan musal ma ci réeralub bànneex musal ma ci waruk àdduna te ñeent noonu ku ci nekk suñ boroom moo wax loolee di ngaañam ndax seytaane moom daa waat ne fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain waat ci tedd ngal yàlla ne ko danaa leen dewloo ñoom ñëpp kon moo tax seytaane moom day dewloo bakkan dafay gis nga suñu borom ne inna nafsa la ammaaratum bisuu bakkan day digle ko tub lu bon bànneex itam day wéeral ndax gis nga wala tattabihi l hawa fa yudillaka an sabilillah bul topp bànneex ba mu lay wéeral ba di la wàcce yoonu yàlla al hawa nag mooy sopp loo xam ne da lay lor te du la jariñ ba tey adduna mbiram moo di wax moo tax suñu borom ne fala taxurrannakum alxayaatu dunia teg ci bismillahi arrahmani irrahim bismillahi maa ngi tàmbalee turu yàlla arrahmaani yàlla ki aji xéewli xéewli digg yi arrahimi yàlla ki aji xéewli xéewli sew yi maa ngi tàmbalee turu yàlla mi nga xam ne mooy xéewal xéewal yi matale ñëpp di xéewli xéewal yi jagoo ca ñenn ña mbaa nga ne mooy xéewal xéewali adduna yi nga xam ne dana koy jox sax ña koy weddee kay mooy ko amaana ñu ëppale ci ci zahir di ko joxaale nag ba tey ñëgëm tey topp arrahim nag mu yàlla muy xéewal ci alaxira ñëgëmoon rek ci àdduna kon arrahman mën naa doon kii xéewali xéewal yu dijj arrahim nekk kii xéewali xéewal yu sew ndax xéewal moom benn mu dijj mbaa mu sew ba tey arrahman mën naa nekk kii xéewali xéewal yu matale yi ñëpp ñëpp arrahim doon kii xéewali xéewal yu jagoo ci ñenn ña ak sëñ bi ci boppam moom li ci ëpp day féetale arrahman yërmande adduna arrahim yërmande alaxira moo tax sax boo day jàng rabbi dinaa yashrahu muy ñaan xéewal gi nga xam ne moom gu addunaa gi ñu xéewalu rahman yàlla matale ko mboolem mbindeef yëpp yëpp ba mu ne rahmanu fëpp li jamihi alxalqi rahmataman yugni an charri man qur'aanahu qaraa mboole mbindee fi booba di adduna jee tax yërmaani adduna jee tax mu wax loolu kon bam ne ilham jami'al wara ya hadiyan radaa ba tey yermani adna jee ko tax di wax waaye yermani alaxira moom kenn sañu koo ñaanal ak yéefar mën nga koo ñaanal lu yàlla gindi ko mu bokk ci ñi gëm ba am xéewul alaxira waaye doo ko sañ a ñaanal tam di yéefar yermandey alaxira kon sëñ bi mu firma yeen ci noonu yi teg ci bismillahi rahmaani rahim waxad ahaadani te musal na ma allahu yàlla tabaraka barkeel na wa taala te mu kawe min suu in nafsi ci bonu bakkan wa min idlaali l hawa ak ci réeralu bànneex wa min iswaai cheytaani ak ci deewaloog cheytaani wa min xuróori dunia ak ci warug adduna sëñ bi dane yaa may muslukat fekk na yàlla musal ma ci ba noppi sama bakkan mucc naa ci mbonam faaw bànneex mucc naa ci sànkam faaw seytaane mucc naa ci dewloom faaw adduna adduna mucc naa ci ak waram faaw te loolu yàllaa ma ko defal wallahu yàlla nag wakiilun ku ñu wakiil la xalaamaa ci li nga xam ne naquulu danañu ko wax sëñ bi ne lii ma wax ne yàlla musal na ma ci ñeenti noon ñii yàlla seere na ne ca dëgg-dëgg ni ma ko waxee noonu la amee amara digal na kaatibu haadihi lxuruufi aji bind ji lay araf jamiha atbaahihi mboolem way toppam bi muraaxaatimaa ci sàmmonteeg li nga xam ne katabahu bind na ko xunaa fii fa inim tasaloo ndeem topp na ñu digal li fa lahum kon njariñ la ñeel na leen wa illaa ndeem topp ñu ko it fa alayhim musiba ma day dellu ca ñoom sëñ bi ne man mi bind araf yi maa ngi digal mboolem ñi topp ci man ñu sàmmoon teg li ma bind fii lu ma ci digle nañ ko def lu ma ci aaye nañ ko bàyyi bu ñu defee laa digle seen njariñ lay doon bu ñu bañee topp laa leen digal mbaa ñu bañ a bàyyi laa leen tere it seen ngaañ rek lay doon yaa machara at baax yi yéen mboolem sama way topp istamihoo déglu leen waqbaloo te ngeen nangu min ñi ci man xaaja lii laa tuxaalifoo bu leen jiyoonte a shariha ta shariha al mutahharata ma di muñu laabal maxamaa ànd ak la nga xam ne tayassara jàppandi na lakum ñeel leen min al xaqiqati ci xaqiqa al munawwarati ma di muñu leeral sëñ bi daa tàmbalee ci ne yéen booleen ñu topp ci man na ngeen déglu bu baax lii may wax te nangu ko li may wax mooy bu leen jiyoonte ak shariha mi yàlla laabal bu leen jiyoonteeg xaqiiqa mi yàlla leeral da ngeen sàmm kon shariha te sàmm xaqiiqa mu daal di firi nag shariha ak xaqiiqa wa sharihatu shariha al mutahharatu madimuñ laabal al imaanu mooy gëm bi tawxiid ci tawxiid wa niyatul xayri ak yéene aw yiw wal islaamu ak womatu mbaa nga ne lislaam rek bil furooxi ca bàngaasee mbaa atteya al fiqhiyati ko jëm fiq al fiqhiyati bima ci li nga xam ne tayassara jàpp ni na lakum ñeel leen min al xaqiqati ci xaqiqa al munawarati ma di muñ leeral min qasdi wajhillahi ci jublu jëm yàlla ja tabaraka barakeel na wa taxaala te mu kawe xindal imtisaali fa topp ga ndigal wa xindal ijtinaa bi ak fa moytu ga tere sëñ bi ne sharia mooy gëm yàlla ci boppam wéetal ko nañ ko war a wéetale ba noppi nag taxaw temm ci li yàlla santaane ñu rëdd ko ci sariya téere yi andi ko nga sàmmonteeg moom bu baax luñ ca digle nga def ko luñ ca tere nga bàyyi ko loolu mooy sariya xaqiiqa nag mooy lépp looy wax ak lépp looy def rek ne yàlla yi kese kese tax booy topp la ñu digle ne yàlla doongu tax booy moytu la ñu tere ne yàlla rek tax nga xam ne kon xaqiiqa mooy tasawuf mooy daal li ngay def ci zahir muy jëfi ndigal mbaa bàyyi tere ne yàlla dong dong tax loolu mooy tasawuf loolu mooy xaqiiqa kon jëfi zahir yi mooy shariha sàmmonteeg baatin ba nag ba yàlla kese kese tax mooy xaqiiqa wa min al imtisaali bokk na ci topp nga ndigal fi alul waajibaati def warteef ya wal mandubaati ak ñu sopp wa islaahuha ak seenug defare bil mubaaxaati yooyu ñu daganal wa min al ijtinaabi bokk na ci moytu ba ijtinaabu sax si teetub jëmm ji mooy moytub jëmm ja fi'la shay fi'la shay in def dara maalum man di doon mimmaa ca la nga xam ne na xeexu tere na ko allahu yàlla tabaraka barkeel na wa taxala te mu kawe xan ci walis ko bi sharihati ci shariha al mutaharati ma di muñ laabal wajjitinaa buhoo akut moytoom fi'la shay in def dara maalum man di doon mimmaa ca la nga xam ne naxaahu tere na ko allahu yàlla tabaraka barkeel na wa taala te mu kawe xam ci walis ko bi shariha ci shariha aydan ba tey taxriman moo xam day tere araamal aw takrihen mbaa muy tere bu ñu teg ci sib fam tasiloo ni ngeen topp waji tañu boo te ngeen moytu li waj fillahi ngir jëm yàlla taala kawe na moom yàlla al karim may aji tedd maxal iktifaay ànd ak doylu ba bi mu jarra di sharihati ci shariha kese bu sell daa war a firi ci lu ñu raflee li sariha waaye mooy sariha kese bu dara raxut maxamaa ànd ak la nga xam ne tayassara jàpp ni na lakum ñeel leen mënal xaqiqati ci xaqiqa bila mujaawasati hima ci lu seenu jéggi ñoom ñaar ila xayri hima jëm ci ludul ñoom ñaar sëñ bi dane booy topp ndigal kët seetlu ne ndigal yi am na ci lu war loo xam ne soo ko defut am bakkaar am daani yàlla am na ci loo xam ne koo sopp nag boo ko defee am nga dem ak tuyaaba yooyu lépp nag na nga ci farlu bu baax te it fexe ba lépp lu am ci lu dagan rek nga jëmale ko ci jëfi ndigal ak bàyyi tere ndax dañuy bañ yàlla féewale la lu dagan nga di ko yàq ci lu araam mbaa lu sib déedéet lépp lu am te mu dagan rek fexeel ba jariñoo ko ci lu yàlla bëgg moytu gi nee na boo dee moytu kat dangay seet lépp loo xam ne dañ koo aaye te aaye ñaar la loo xam ne sharifa da ko rëddi ne aaye na ko te ku ko xëtt ñu xam ne xëtt na ko am loo xam ne nag moom xaqiqa ci boppam te mooy tasawuf moo koy aaye te mooy jikko yu bon yi ak bon bon yi bakkan yooyu yëpp da ngay jéem moytu leen bu baax a baax nit yi lu mel ne fen mbaa njaaloo mbaa sàcc ak yu demee noonu moom sharixa ko rëdd muy lu fës ku ko def ñu xam ko waaye nag li mel ne def te yàlla taxut muy ngistal wala añaane kenn xéwal ko yàlla xéwale mbaa rëy ak yu demee noonu moom xaqiqa ci bopp moo koy aaye ko defee nag kon neen da ngeen di jéem a xam li ñu rëdd ci xarixa aaye ko ngeen moytu ko bu baax xam la xaqiqa itam muy tasawuf ak ak sellal di bañ ngeen moytu ko bu baax a baax kon nag na ngeen topp li ma leen digal bàyyi li ma leen tere te nag yem leen ci lii rek muy shari te mooy rek jëfi ndigal bàyyi tere gannaaw ba ngeen wéetalee yàlla te jëf ga ndigal ak bàyyi ga tere yàlla kese kese tax loolu mooy shariha xaqiqa nee na yaar yi moom nee na yaar yi moom bu leen ko weesu mukk mukk jëm ci leneen fa inna amaamakum naka nekk na ci seen kanam maa loo xam ne daxaakum woon na leen ilaa samhima jëm ci dégg li nga xam ne naa daytukum woon naa leen ilayhi jëm ci moom wa qaboolihi aku nangoom kon nag fala taxurrannakum bu mu leen war alxayaatu dund gi ak dunyaa gi gën a suufe mbaa nga boole ko ne alxayaatu dunyaa dund adduna gi wala yaxurrannakum te bu mu leen war billahi ci yàlla alxaruuru warekat ba te mooy seytaane fa inna amaamakum nag nekk na ci seen kanam zawaajira way jàjje yam dox yi ngay dana yàlla ak tambiixu yeete ga xalihaa ci ñoom wa tanabuhu ak yeewu ga laxaa ñeel leen nee na kat lii ma leen dénk kat war ngeen koo jàpp bu baax a baax ndax bu ngeen ñëwee ba ca kanam ngeen gis ay mbir yu day waar yoo xam ne da ngeen ca xamee ne lee ma leen dénkoon rek lu mat a yeewu ba xam ko la te di ca yeete ña ci yeewuut lu mat a yeewu ba xam ko la bu baax a baax te di ca yee ña ca yeewoo di ko kon da ngeen jéggul seen boroom tuub dellu ci moom te moytu adduna war leen moytu saytaane war leen wallahu yàlla wakiilul ku ñu wakiil la xalaamaa ci li nga xam ne naquulu dara nu ko wax loolu sëñ bi dana ko di daaneele ay mbindam lu bare bari mooy lii muy wax yàlla seere na ko bismillahi irrahmaani irrahim moo wa alaykum assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuh amma baadu ndaal gannaaw ba fa innal murida naka taalibe ba as saadiqa bay aji dëggal ida araada ndem bëgg na al intifaaxa jariñu yaataqidu dana fas fi cheikh yi ci sëriñam ba ni annahu naka moom waasi tatun ab diggale la baynahu digganteem wa bayna rabbihi ak diggante boroomam wa yamtasilu tamu topp amrahu ndigalam wa yajtani bu tamuy moytu nahyahu tereem ga wa yuqinu tamu wóolu bi anna cheikhahu ci naka sëriñam ba laa yamuruhu du ko digal bi cheyin ci dara illa bi idnillahi ndara ci ndigalal yàlla tabaraka barkeel na moom yàlla wa taala te mu kawe wa annahu ak naka moom sëriñ ba it laa yanhaahu du ko tere han cheyin walis dara illa bi idnillahi ndara ci ndigalal yàlla tabaraka barkeel na wa taala te mu kawe gannaaw ba mu nuyoo ne moom sëriñ bi mu ne ab taalibe bu dëggal day bu bëggee jariñu day fas ne sëriñam bii moo dox digganteem ak boroomam lu ko sëriñ ba digal mu def ko lu ko sëriñ ba tere mu bàyyi ko taalibe bi day gëm ne sëriñam bii sës na ci boroom sës ku toll ne lépp lu mu ko tere rek yàllaa ko ne tereel sa taalibe bi lii gënul ci moom lépp lu mu koy aaye it yàllaa ko ne aaye sa taalibe bi lii gënul ci moom wa man kaanat ku nekk xaqidatuhu pasteefum xeeka saa niki nii fa innahu naka moom yaxta yi dana làq alfawaida njëriñ ja fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira wa kullu cheikhin bépp sëriñ nag yamuru ba dana digle aw yanha wala muy tere bi xëyri isnin ci lu dul ndigal minallahi lu bàyyikoo ci yàlla tabaraka barkeel na wa taxaala te mu kawe wa min rasulihi ak bàyyikoo ci yonanteem ba alayhi yàlla na doole nekk ci moom assalaat dolli teral wasalaam ak dolli woolu wa yamuru te muy digle min jihati nafsi yi ci wàllu bakkanam aw yanha wala muy tere min jihatiha ci wàllu bakkanam ba tey mbaa nga ne boppam fa dallun kon aji réer la moo villun kuy aji réeral wa ila hada te jëm ci lii kat achartu laa junde ba xaw li sama wax ne wa wajabat war na taaxatu man topp ka nga xam ne yàq foo dana xeyntu mooy dana topp rasula yonante ba sàllaa yàlla na dolli tedd nga xale yi ci moom man yàlla mi nga xam ne yax boo dana maye bi ci darajaam bi suulin ci pajuk aajo min ru'asa i diini dil kamaali ci kilifa yi diine yi borom mat ga man kilifa ya nga xam ne laa yuraa defu gis min hum ci ñoom suwal jamaali ndare ab taar mooy lu may ab taar wassalaam al amru bil maarufi wa nahyu xanil munkar maanaam digle lu baax aaye lu bon moom képp ku ko teg ci saw loos rek war nga koo gàlloo lay aay nag mooy mu koy def ba noppi nag xaw caa dugal ak woote maqaama ak sës ci boromam goo xam ne àgg na ci sës goo xam ne daal la muy digal kookee da ca am digalul xaas lu bàyyi ko ci boromam mbaa da ca am tere xaas bu bàyyi ko ci boromam boo xam ne nit ci kese yi amuñu ko ca bu fekkee moo nit ci kese yi ñooyam rek ci sañ a digle ba mu wane dara dara lu nuru ne raw na leen ci googa wàll su boobaa moom lu baax rek la def te tuyaaba la ci am waaye woote nag ci mbirum baatin lu amul nag loolaay aay ndax ñi nga xam ne wàll yi am na ci ñu yàlla wooteeloo ñu wëkk yonante yi te ci am ñoo xam ne itam amuñu ndigalul woote bu ñu wootee sax xëy na loola mën nañ caa jaare seen mbir yàqoo ca suñ bi nag ne képp koo xam ne daa bokk ci kilifa diine yi topp ci yonante bi te nekk kilifa gu mat nga xam ne fa yonante bi tegan ab tànkam foofa la teg ab tànkam moom itam ku mel noonu nee na des ko war a topp roy ci moom ndax kooka mooy àggali nit ñi fa yonante bi bëgg jullit ñi àgg fa ngir max naa moomu leer la da nga koy seetlu ci sëriñ bi ci boppam moom yonante bi moo ne ko fasda bi maa tu umar jama saa boroom joxoon rafaatele naa la ko yow itam wool doomi aadama yi teg leen ci yoonu yàlla ba ñu mën ak seen boroom teg ci ni ko dana ko wax ci biir sunu boroom xamal na la ñu nekk ci xoli jaamam ñi kenn ku ci nekk na nga ko wàcce wàccukaayam ñu mel noonu nag ku melul ne ñoom waroo jéem a feeñal ne mel naa ne ñoom loolu rek moo aay sëñ bi jàll ci beneen min aadaabil muridi bokk na ci teggi ni taalube surxatul ijaabati gaawuk wuyu ga baada samhihi ci gannaaw ak déggam daawata cheikhi wootek sëriñ ba wa husnul tisaalil awaamiri ak rafetub topp ndigal ya baada xoroojil izni ci gannaaw génnub ndigal la mina cheikh yi tukkee ci sëriñ ba maa husni zannin ànd ak rafetum njort bii ca sëriñ baal ndigal la bilaa xoroonin ci dul ak xoox xoox mooy bañ deltu gannaaw wala nifaaxin bi caagéenu ak naafiq ulaayika ñooñee day yu saari xoona danañu njëkkante fil xayraati ci yiw ya waxum te ñoom saabiqoona way raw lañu laxaa jëm ci yiw yooyee saari xoon njëkkante leen ilaa maxfiratin jëm ci njëggal min rabbiku mu tukkee ci seen boroom wasalaam sëñ bi nee na bokk na ci teggi ni taalibe gannaaw bu déggee wooteeg sëriñ ba daal di gaaw wuy ji bu ko sëriñ bi digalee mu daal di gaaw topp ndigal la te rafetal toppin wax te rafet njort ci ne loola ñu ko digal rek ca lay amee pajug aajo na moytu nag lu ko bañ mbaakuk naafiq na ànd ak nangoo ku mokk aku sell te yàlla tax ñu mel ni daal dañoo mel ne ñuy njëkkante lu baax te njëkk ca boole ca mu ne nag boo leen njëkkante njëggalal seen boroom te njëkkante njëggalam mooy farlu ci topp ko ak moytu koo moy mu daal ci beneen tam biixun li ak yeete la wa tarku naa sunu bàyyi algaziba xen yaa ixwaani yéen samay mbokk afdalu moo gën min tilaawatil quraani jàng al quraan ثم النصيحة توب لا بيره لأهل الباري ñeel ñooñ aji bind ji te mooy yàlla xayrun moo gën minal jihaad ci jihaad fil kuffaari ci yéefar ya kazaaka naka noonu zikrul mawti fàttaliku dee afdalu moo gën danaa ñeel nu minal xiyaami ci taxaw taxaw ji li moo ko tax di wax fi leyaali ci guddi ya zamanan ci jëkk jamono sëñ bi ne moytoo fen moo gën jàng alquran ak li jàng alquran di baax baax kon nag boo mënee boole jàng alquran ak moytoo fen da nga boole yaar yu rëy rëy yu màgg màgg màgg ba tey sëñ bi ne laa biire jaami yàlla yi te yàlla tax te mooy loo xam ci leen di jariñ nga laabire leen ci loo xam ci leen di lor nga laabire leen ci ñu xam ko moytu ko laabire googu bañ a añaane kenn yéen ñëpp jàmm nee na loolu day li jihaat ci yoonu yàlla di baax baax laabire googu moo ko gën kon nag ba tey kon boo boolee jihaat ak laabire jaami yàlla yi te yàlla tax kon day boole nga yaar yu màgg màgg ba tey sëñ bi ne julli guddi li muy baax baax fàttaliku dee moo ko gën li ñu amee ci fàttaliku dee mënees na ko bañ a amee ci taxaw di julli ci guddi gi gannaaw bu nelaw neexee kon nag boo boole yaar yépp di julli guddi ak di fàttaliku dee yaa ngi boole yaar yu màgg màgg moo tax mu daaneele fa dum na nga sax xala sidxi ci dëggal ga maxan nasihati ànd ak laabire ga wa zikri ak fàttaliku ga dee in xista ndeem ragal nga radun ci ëllëg fadihatan gàcce mu ne kon nag boo ragalee gàcce ci àllaaxira na nga sax ci yett yii mooy lépp looy wax muy dëgg foo toll di laabiire jaami yàlla yi te yàlla tax foo toll di fàttaliku dee ay doon ba tey sëriñ bi nee na woon taxas sosoo na ngeen tedde di dulli ci nangoo torox siran ci lu nëbbu waxaala nan ak ci lu feeñ wal te ci xaloo te ngeen def alfaqara ñàkk yoxe naa kumoo muy seenum koom zamanan ci jëkk jamono wal taj xaloo te ngeen def al jox xiif taxaama ku muy seeni ñam abadan faaw fa taxtawoo kon da ngeen làq al wasoola àgg billaahi jëm ci yàlla ak samadi te di ko jubli ci aajo sëñ bi ne bu ngeen bëggee àgg ci seen boroom te ngeen di nangoo toroxal seen bopp te yàlla tax nga xam ne daal lu ngeen am genn rëy mbaa genn fuuy déedéet da ngeen di toroxal seen bopp def seeni bopp jaami yàlla biir biti nga xam ne kon da ngeen di jàpp toroxal seen bopp ngir yàlla muy seen teraanga ngeen nangoo ñàkk lépp lu bokk te yàlla bu ngeen nangoo ñàkk lépp lu bokk te yàlla def yàlla rek muy seenum koom ba tey nangoo xiif nga xam ne yàlla jaar na leen def xiif muy seenu ñam lii bu ngeen ko boolee da ngeen àgg ca seen boroom insha allahu taala kon toroxal sa boroom moom ngay def muy teraanga nangoo ñàkk def yàlla muy sam koom mooy ñaareel ba da ngay nangoo xiif ba far def xiif muy sa lekk yéen ñu ko boole àgg ci yàlla insha allah wa asheexu radiyallahu anhu alxaaqiloona way xelliña yetasaabaqoona danañu rawante bi jiyaadil xuqooli ci naari góori xel ya wal xaafiloona way sàggal ña yetasaabaqoona danañu rawante bi jiyaadil xulooli ci naari góori fas ya fal xaaqilu aji xelli ja saa yatruku du bàyyi mam doo xam lu ñu tagg yaxruju muy génn wala yatruku te du bàyyi maz mooman lu ñu nàññ yadxulu muy dugg ba li fi nekk yaaqilu day rat rat mooy yeew al madmuma la ñu ŋàññ bil xaariji ca biti wa yaaqilu tamu rat mooy tamu yeew al mamdooxa la ñu tagg bi daaxili ci biir bila xalli waahidin ci ludul socc kenn min xumaa ci ñoom ñaar min xuqaalihi ca ratam nga mooy ca yeew gañ ko yeewoon wasalaam sëñ bi nee na woon ñu am xel dañuy wax naari góori xel di ci rawantee xam nga xel day wan nit lay tax mu am ngërëmul yàlla di ko wantam te am ngërëmul yàlla ñu am xel nag moom dañuy jiital seenum xel mu leen di womat jëme leen ci ngërëmul yàlla moo tax mu naa ñoom dañuy rawantee ci naari góor yi ay xel ñu sàggan nag ñooy rawantee ci naari góor yi fas yi nga xam ne moom nga xam muy daw ci kaw suuf si maanaam ñu sàggan moom li si adduna yi ñàkk solo yi mel ne fas yeeg oto yeeg xeeti yooyu gaaw a jeex rek ca la ñuy rawante ka ëppalante ku yeewu dëgg-dëgg nee na day saxe ba lu baax lu ñu tagg lu ne mu nekk ci biiram te du génn mukk mukk lu bon lu ñu ŋàññ lu ne mu sori ko du dugg ci moom mukk mukk du joteeg moom dara dara day saxe ba la ñu bañ di lu ñu ŋàññ mu nekk ci bitti du ko jege mukk mukk la ñu tagg di lu ñu bëgg fu mu toll taqoog moom mu nekk ci biiram du tàggoog moom mukk mukk nga xam ne yeew na la ñu bañ ci bitti te du ko yeewi mukk mukk yeew na la ñu bëgg tagg ko yeew na ko ci boppam yeew ko ci biiram te du ko yeewi mukk mukk xaala cheikhu radiallahu anhu wa ardaahu xanna wa nafaxanaa bi fi amin sëñ bi waxam ne maa loo xam ne lafzuhu baatam mooy lii mooy allahu yàlla tabaraka barkeel na wa taala te mu kawe lamma xaataba ba mu wàqanteeg ahlul kitaabi ñoom téere ba di xawlihi taala ci waxam ci moom yàlla ne yaa bani israila yéen bani israil udkuroo fàttaliku leen ñu amatee sama xéewal allati gi nga xam ne anamtu xéewal naa ko aneekum ci yéen wa anni ak naka man faddaltukum gëlal naa leen xaalal xaalamina ci mindee fi seen jamono wa bi xawli ak ci waxam ja taala ne wa aataakum te mu jox leen maa loo xam ne la muy uti joxu ko ahadan kenn li nga xaali mi ne ci seen bindee si jamono ñun man ci ña nga xam ne madaw wéy nañu si muqtada haasal xitaab bi ci la ñu sàkku yi bi lay wàqante mbaa nga ne ca la la bi lay wàqante yi sàkku minal ambiyaa yi ca ñañu solo wala mursalin ak ñu yónni wa man ak ñi nga xam ne ba adahum nekk na seen gannaaw walam yashammoo te foonuñu raihatamaa xetuk la nga xam ne xum ñoom fii si nekk nañ ca minal imtisaali ci ak topp ndigal wal ijtinaa bi ak moytu ak tere wa asarroo te ñu nuuru fil kufri ci weddi wa adbaroo te ñu dëddu xamillaahi walis yàlla wa rasul ak yonante ba xaatabahum yàlla waxante naa ñoom ne leen nag fa inna allah naka yàlla xabiwun ab noon la lil kaafirina ñeel yéefar ya wallahu yàlla waliyul muminina mooy aji méngoo way gëm ña maanaam mooy kay féete woo seeni mbir loolu dañ ko feccalee kaset bi rek waaye téere bi ñu wax ne sëñ Abdul Ahad moo ko boole woon te ci boole wax sëñ Touba ëpp na ñaar fukki kaset